salaamaaleykum àdduna bi seen Senclic site bi sénégal yi taamu tànk yéen a ngi wax dëgg di informer dëgg di wane dëgg yéenay suñu site Senclic clic